برهام باء وراء ألف ثم هاء ميم مجل فيض تيجان جخن نينام صلى الله عليه وسلم آه، ديني نيب ما شاء الله ديال مساو تيونا فين جوغي amna na ñoo xam ne fi sori na lool mu tombé ka samaan bi neexul waaye góorgóorlu nañ ba yegg ñu ngi leen di ñaanal yalla yalla ñu yalla nangul suñuy xasal yalla nangul suñu lazim ak suñu wasifa daraja yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam ñoo ngi ndokalante toujours euh, ci wër wiñ nekk xam ngeen ñaari wër yu tégaloo yi muharram moy wëru tam xarit bi passé ak wëru safar biñ nekk ñaari wér la yo xamné ku nekk ci Ahmed Tidiane yàlla def ko ci may lu rëy cadeau gu rëy a ma sha allah bismillah ci wér muharram wa fi al muharram gada ghawsan rashid xalifatan an al muhaymin ilmuhaymin almajid uctiya ذاك شيخنا بعرفة حكاه من حققه وعرفه loolu borom muniyatul murid moo ko wax mu ne wa fi lmuharrami ci weeru muharram mooy weer wi génn nii غدا غوثا رشيد si la Cheikh Ahmed Tidiane mujj nekk xawsu xalifatan mu nekk xalifa yàlla anil muhaymin il majid yàlla la ñuy tuddee muhaymin maanaam weeru muharram bi passé si la Cheikh Ahmed Tidiane jotee woon xilaafatullahi fi ardihi maanaam mu wuutu yàlla ci kaw suuf loolu nag maqaama la bu rëy a rëy ci maqaama Cheikh Tidiane ndax maqaama Cheikh Tidiane yi gën a màgg yi gën a rëy ñett la mooy xilaafa ak xatmiya ak katmiya bu nekk nag dafa am waxtu wam ko jote mais ñaar yi nag dañoo xaw a jagalante lool mooy eh, xilaafatullahi mooy xilaafa gi moo ngi ko amee ci weeru muharram moo tax borom munyatul murid nee new fil muharrami ci weeru muharram gada xawsan rachid maanaam ci la mujj nekk kayram mu mbindeefu yàlla gi rachid nekk ku jub rachid nag mooy ato daf ko tënk noonu rachid ku jub lay firi waaye rachid mooy ato bam amee maqaama gi خليفه مو نيك خليفه يلا يالا ميغا خا موي مخيمن المجيد ني نه مقام خلافه كي فان لاكو شيخو تيجان امي تي ويرو محرم من اعطي ذاك شيخنا بعرفه حكاه من حققه وعرفه يخ نانكو مقام دي فلي تي عرفه وا آه، سيلانس لين بورتابل ناخ وقتو دافا غات سوني نيك في دي سوني رك اير بي جي حتى فك يعني ديغ آه، تنكوني دارا تو دانيو بوغا تنك دارا ناخ دافا ام كوني كو نيان سي مبولو مي دافا ام كوني نيان سي مبولو مي ني وقتان توتي سي comme que ñoo ngi ci weer wi te jamono yi jamono yitte la macha allah daje yombul kon ma ne nañ coupé fii xadra bi donte dix minutes la ñu baaxante ci suñ jëlee dix minutes yëpp def ko sonori nag moom day jeex timis day ñëw fekk tënkuñu dara moo tax nag Cheikh Ahmed Tidiane yàlla may na ko mu nekk xalifa yàlla utiya zaaka cheikhuna bi arafa Cheikh Ahmed Tidiane jox nañ ko maqaama googa ca arafa xam nga Cheikh Tidiane moom moo nga woon faas mais bañ koy nomee mu nekk xalifatullahi fi ardihi dañ ko woo ba arafa arafa lañ ko yonti yàlla muhammad moo nga fa woon ak ñee eh, ñeenti sahaaba yi aboubacar ak umar ak ousmane ak téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni yonenti cent vingt quatre mille anbiyaaw yi ñoo nga fa woon yonti yàlla muhammad ñëw woo cheikhu tijaani yi moom ak ali harazim ali harazim nee na cheikhu tijaani yi diggante faas ak arafa benn jeego la ko def dañ ko jeegu ngir dañ ko pour na ma ko maqaama gu soxlawul mu yéexantal ci yoon bi mu yegg ba mu yeggee macha allah yont yàlla muhammad tabal ko garaatu xilaafatullahi fi ardi pour ñu xam maqaama xilaafa fan la ko Cheikh Tidiane amee ak yoon weer mooy weeru muharram bokkul ak 18 safar gi ñuy màggal ni léele leeg katmiya gi ñuy war a màggal ci guddig àllarba bii di ñëw boobu bokk loolu ya la ya bokk la xilaafa xilaafa maqaama la gu yàlla solal Cheikh Tidiane moom moo wuutu yàlla ci kaw suuf mooy maqaama soo bëggee xam xilaafa mooy lan guddi googu موي ليله بيعه الخلافه المحمديه نيابه عن المملكه الربانيه ني لا كون شيخ حسن دي تنكي من ليله بيعه الخلافه المحمديه موي غودي نيايانتك خلافه يونت يالله محمد خمغا خليفه سو генني جابور دي ناني فارال دي داجي غودي غوغ ني داجي خول كوي نيك خليفه با جوخانتك موم لوخو غودي غوغ موي غودي غاني نامي شيخ عثماني فلي موي ليله بيعه الخلافه المحمديه niyaabatan ngir wuutu anil mamlakati rabbaani gouvernement yàlla bi nga wuutu ko ci kaw suuf nga nekk ki représenté yàlla ci kaw suuf maqaama googu kawe na waaw boobu nag biñ ko ko joxee biñ ko joxee Cheikhu Tijaani yàggul nag wa ba'da shahrin wa layaalin irtaqa ila maqaamihi al aziz al muntaqa maqaamihi al maktuumi an kulli al nabiyi ma waraahu wara wa ba'da shahrin ginnaaw weer wa layaalin ak ay fan yu gàtt yu tuuti su temps bi moom moo ma faram-fàcce yooyu ci la nag Cheikh Ahmad Tidiane irtaqa la yéeg ila maqaamihi jëm ci maqaamam al azizi gu tedd gi al muntaqa gañ tànn gi maqaamihi mooy maqaamam al maktuumi gañ nëbb an kullil wara mbooleem bindeefug yàlla gi ginnaaw bu mu amee xilaafa nekk di xilaafa li muy rëy rëy yëpp laltaay la pour Cheikh Ahmad Tidiane jël tànkam teg ci maqaama goo xam ne kenn du ko fa xam ku dul yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy maqaamihi al maktuumi an kullil wara mooy maqaamam giñ nëbb mbooleem bindeefug yàlla gi gis nga maqaama gii mbooleem wali yàlla yi ñoo ko doon wër ndax wali yàlla gu nekk am nga maqaama goo xam ne yaa ngi ko petoog sa borom ñu bëri xamuñu la foofu loolu maqaama googu sa maqaama la boobu sa katmiya la waaye katmiya bi nga xam ne moo ëmb mbooleem katmiya yi wali yàlla gu nekk am na katmiya katmiya mooy sa maqaama gi la yàlla eh, beral te fekke ñu bëri ci mbindee mi xamuñu ko wali yàlla gu nekk da faral di am booba waaye nag gi làq gi làq mbooleem maqaama katmiya góoru yàlla yi comme ni xatmul wilaaya ci amee xam nga wali yàlla yi wilaaya dafa am mais ku nekk ak sa wilaya léegi nag am na maqaama bu ñuy tuddee xatmul wilaayati moo dajale wilaya ci biir xeetu yonent yàlla moom xam nga boobu Cheikh Tidiane moo ne ko déjjët encore moom ko léegi nag bële nag katmiya bi wali yàlla yi ñoo ko doon xëccoo bàyyi ñees nee ne ta ta taraama qutubun darka gaayati cheikhina walaysa lahum wal amra lillahi sallamu hmm. góor yàlla yi daan nañ xëccu pour yegg ca maqaama googu waaye walaysa lahum baay ne moomuñu ko wal amra lillahi sallamu ñu mujj jébbal yàlla mbir motax tax Cheikh Tidiane ku ko xam deug deug deug xam da ngay gas bàmmeel ci hadara motax ba Baay ne bi illikum kuntum sikan bila saramin fala akunu li amri za khasarati bi illikum ci sa kóllëre yow Cheikh Tidiane kuntum missiikan sooy firi misikan waxul mumtasikan wala mu'tasiman mais bi illikum kuntum misikan bila la saramin missiikan mooy dama téye ngoy ci comme légui suñ la buuxoon ci 10e étage amul fenn foy jàppan lu dul nga keuf ben dagitu boom na ngay xecce boom bobu jafandu ci lolou lañu ñu misikan bayina yow sa kolore yow Cheikh Tidiane kuntu misikan misikan la ci don dama ko téye moy ci bila saramin te du dog muk fala akunu la amri za khasarat yàlla ma bok ci ñooñu perte ñi bés pencum yàlla ndax Cheikh Tidiane maqama yi nga xamne man dama ko woyon depuis yag ya 18 ban 18 ans wala 20 ans la woyon ñetti maqama yi nga xamne ñoo gëna ko wé ci maqama Cheikh Tidiane ma tënk ko ci ben ci ñaari bayt pour pour talibé gën ko mokal mu gëna yomb ci ñom mané len li cheikh li cheikh laylatun salasun tanjali fi ayni kulli mubassiri khatmiyatun katmiyatun wa khilafatun anha taqasar qadru kulli مشمل Cheikh ma ci am amna ñetti guddi yo xamné wali lum koy koy mano yegg ci guddi yo te wali lum koy koy yaa ngi seen maqam yo mais da ci cee yegg moy khatmiyatun katmiyatun wa khilafatun xilaafa mo jitu bala khilafa sax khatmiya moy maqama gi matal Euh, wilaaya ci xeetu Muhammad te yooyu dañ ko war a faram-fàccee taalibe yi xam ko ndax sa sëriñ xam ko yokkute lay doon toujours. Hmm. suñ la waxee luy xatmiya ñu nga ne Cheikh Tidiane ko moom luy xatmiya nga ne Cheikh moom luy xilaafa nga ne Cheikh Tidiane ko moom léegi nag lu séparé maqaama yooyu bu nekk ak ban jamono la xam nga loolu jar na nga xam léegi xatmiya mooy soo bëggee xam xatmiya kañ la ko Cheikh Tidiane am xoolal yonent bi ñaata at la am ñu rañaan ko jëm ci asamaan juróom-ñaari asamaan ba mu amee cinquante ans net hmm. Cheikh Tidiane ba mu amee cinquante la ko yàlla jox maqaama xatmul wilayati fi ummati muhammad xeetu yonent yàlla muhammad mbooleem waliyu yaa ngi ci roon tànkam waaw loolu lay bàyyi bàyyi ñes di wax wa hammatuhum min tahti naalika faxtabi lawla tuqaa yaa cheikhu xiltuka abada seen bopp yëpp ñoom wali yàlla yi mu ngi saroon tànk yi su ma ragal ma rek man la yaay yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye damaa ragal yaa ngi dégg moo tax maqaama googu mooy xatmiya ci gàttal rek am na ñuy wax ne ba mu amee cinquante cinquante un ans mais nag cinquante ans yi ba mu motee rek la soobu moom Cheikh Ahmed Tidiane ci xatmiya léegi nag biñ li li tegu ci xat mi yëpp mooy xilaafa mooy moo wuutu yàlla ci kaw suuf ndekete loolu yëpp dañ ko doon laltaayal maqaama gi gën a rëy boo xam ne moo gën a màgg ci maqaama Cheikhu Tidiane du xatmul wilaayati moo gën a màgg du xilaafatullahi fi ardee gën a màgg déedéet maqaama katmiya xam nga lu tax mu màgg kenn dakaa xamul loolu moo tax mu màgg ndax mbir lu mu màgg-màgg soo ko xamee rek mu xaw a woyof ci yow. li nga wax naa yàlla fi mu nekk nii màggaayam dafa des ndax kiiraay gi mu dóor suñu digganteeg moom. waaw yàlla dafa dóor kiiraay suñu diggante moom moo tax toujours màggaayam di gën yokk ndax anamu soo ne anamu rek màgg na ci sa kanam xamoo ci dara yaa ngi dégg de mooy firi mbir mi fekk moom lay làqu rek dafa rëy sa kanam moo tax maqaama Cheikhu Tidiane maqaama kat miya waa ji ne maqaami hil maktuumi an kullil wara dañ ko nëbb ci mbooleem bindeef yàlla gi dañ ko laaj ah bindeef ne xanaa yonant bi ci la bokk mu ne siwan na bii lu dul yonant kon maqaama maqaama yàlla bu kawee day tudd ahadiya kenn xamu ko yàlla ku dul yonant yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah parce que bàyyi na istisnaiya pour njëriñ gi mën a baawaan léegi yonti yàlla Muhammad ci maqaamam ahmadiya kenn xamu ko foofu ku dul Cheikhu Tidiane kon am na istisnaiya pour njëriñ li mën a baawaan mais Cheikhu Tidiane ci maqaama katmiyaam tamit kenn xamu ko foofu ku dul yonti yàlla Muhammad si wan nabi du dul yonent bi maa waraahu wara mu ne maqaama googu benn maqaama féetewul ginnaaw boobu moo ëpp xatmul wilaayati boobu moo ëpp maana xilaaf boobu nag kañ ne ko Cheikhu Tidiane am moo ko am ci weer wi ñu nekk mooy safar kon xam nga nekk te ñaari weer yi bu nekk rek Cheikh Tidiane am na ci ndam mu rëy léegi nag bii nii ci 18 bi mooy fukk ak juróom-ñetteelu fan bi mën nañ wax àllarba bi di ñëw na incha allah ci guddi ndax maqaama yëpp ci guddi la leen Cheikh Tidiane amee amul bu am ci bëccëg maqaama yëpp góor yàlla suñ leen di tabb soo xoolee la plupart guddi lay doon ndax guddi dafa am maqaama ci yàlla goo xam ne bëccëg amu ko yàgg naa leen wax ci alxuraan am na suuratul leyli saaru guddi waaye doo ci gis saaru bëccëg Cheikh Tidiane nee na benn saatul faati boo def guddi moo ngi moo ngi mel ni juróomi téeméeri saatul faati yoo def bëccëg kon xam nga guddi inna naashiyata léegi ya ashaddu wat'an wa aqwamu qiila alxuraan nee na ah guddi moo ngoo si Abdoulaye Dia daan nañu wax maa subiqa masbuqun illa fi layli kuñ raw rawuñu la lu guddi yaa ngi nelaw gaa yaa ngi yeewu kii raw rawul lu guddi moo ngi yeewu gaa yaa ngi nelaw kon mbir yëpp ci guddi la moo tax ma ne ca baytu bali li cheikh yi laylaatun Cheikh Ahmad Tidiane am na ñett guddi salaatun laylaatun ay guddi yëpp guddi la xatmiya bi ci guddi lañ ko tabbe katmiya bi guddi la xilaafa bi ci guddi la laylatu bay'atil xilaafatil muhammadiyya niyaabatan anil mamlakati rabbaani marché Abdoulaye Dia daan na wax guddi ku ko fooyee xamoo luy guddi mu ne su su dee nelaw nag mu ne nelaw yi denc leen ko seen i bàmmeel ndax foofu soo demee nelaw kese fa kon guddi daa riche daa fort ci yàlla moo tax si Ahmada Tijaani nag ci biir maqaama yooyu nag soo ko déggee soo ko comprendre parce que léeg-léeg nga nga am sa sëriñ nag fekkee comprendre ko léeg-léeg nga am sa sëriñ fekkee la nga xam ci sa sëriñ bi lañ ci réeré moo ko ëpp waaye soo xamee Cheikhul Tidiane dëgg-dëgg moo lay gënal lekk moo lay gënal naan moo lay gënal nelaw moo lay gënal lu ne ba sax sooy wirdu sa wirdu yi sax dafa mel ni mahabbatu Cheikhul Tidiane radiyallahu anhu daanaka su am na nu muy fooree ci yow sax moo moo gën a kawe maqaama wirdu ak mboolem xeetu jaamu yàlla ndax Baye am na fu mu ko junj ci jawaay rasaay moo tax Baye Ñas ne billahi billahi tubtu cheikha dha kalafin rahina shawqin gariqan inda min jaati بالله بالله لا أي شيء يصاعدني إن لم أشاهد همامي ذا الكسوفات بالله بالله دفع جنيار ما جنت يلا تقت الشيخ من دما بق الشيخ تجار ñu ne ko fa la mu ne saa kalafin def boroomu mbëggeel laa laa la wax tuq tuq yaa ngi dégg de bëgg naa za kalafin al kalaf mooy mbëggeel gu ëpp encore rahina shawqin man dañ ma tëj yaa ngi dégg jikkunde ma ci mbëggeel gi ma bëgg Cheikh Tidiane mel ni nga lépp ñu ne la indil tayle xam nga tayli gi fekk indoo bor bi rek langa nga tayle doo ko mën a delloo mu ne man nag dañ maa tayle ci mbëggeelu Cheikhu Tidiane yaa ngi de xariqan wala xaliqan ñaar yëpp dañ maa tëj kenn du ma tijji lu dul lu dul ñu fay jukkunde ba bor ba te duñ ko musa fay ba abadan wala xariqan damaa lab ind min jaati ci rawukaay gi mooy Cheikhu Tidiane nga ñëw ba fay ñëpp di rawee nga lab fa dee fa loolu la bàyyi ñes loolu laa def ci Cheikhu Tidiane mu ne billahi billahi ay chi gëñ naa ci yàlla gëñ naa ci yàlla sama dund mukk du musa texe in lam ushahid umaami dal kushufati su ma gisul sang bi mooy kilifa gi mooy si ahmada tijaani radiallahu kon nga xam ne nekkete cheikhu tijaani si ñetti maqaama yii nga xam ne moom la rawee góoru yàlla yëpp amul amul sàmba nag amul dem affaire bi wali yàlla yëpp màgg nañ waaye yàlla daal moom moom ngene la moo koy séddale amul benn wali yàlla gu yegg ci xatmul wilayat am nañu ko bëggoon mm-hmm. amul benn wali yàlla gu yegg ci xilaafatullahi fi ardi yi ak man nga rek xalifa yàlla ci kaw sa jamono ndax yaa raw sa wali yàlla yi mais maqaama bi nag maqaama yow gis rek am na bu koy conclure nga xam ne moo féetee kaw supérieur bi nga xam ne mooy junj lépp ndax soo gisee yonent yàlla isa da ngay wax foor na lool ci ulul azmi mina rusul la bokk Moussa mm-hmm. kalimullahi ci ulul azmi mina rusul la bokk nuuhu noona yaa ngi dégg de Ibrahim noona waaye ñoom soo soo boolee seen maqaama yi ñoom ulul azmi min rasul dafa am ku ko boole toog sa cëppaandaw nga ne leen maay seen kilifa maqaama yëpp ci maqaama góor yàlla yi noonu lañ mel soo leen boolee dax bi kan moo ko féetewoo loolu mooy xatmul wilayati ak xilaafatullahi fi ardi yi kat mi yéen ak moom daanaka waxtu yi moo ñu mbayul waaye bu ko jéem a sax xam ndax ci Ahmed tijari neena ken du ko fa xam lu dul yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam Baye ñes tamit wax nako inni bi madhika ashdu innahu nusuku wa innaka al khatm wal alxatmu walmaxtuumu walmalaku كتمت في حضرات الغيب ليس سوى المختار يدريك لا انس ولا ملك لكن تجليت للاكوان جملتها اذ انت انت ومنك الفلك والفلك اني بمديك اشدو باي نينا يو شيخ تجاني ماغي يوخو تي تاغلا innahu nusuku te tagg la mooy jaamu yàlla mu ne tagg Cheikh Tidiane mooy jaamu yàlla innahu nusuku wa innaka al xatmu yaay xat xatmul wilayati fi ummati wa innaka wa innaka al katmu wal maxtuumu wal maktuumu su la neexee su la neexee nga ne innaka al xatmu wal maktuumu ndax maxtuumu mooy xatmu maktuumu mooy katmu innaka al xatmu wal maktuumu wal malaku wal maliku wal maliku laay wax wal maliku فاي والملك يا يعني ملاك يا يعني ديك والملك والملك والملك بالكسر ولا والملك ودال دي واخنا كوتيم تفي حضرات الغيب يا دنج لا لاق سي حضرات يالله كوتيم تفي حضرات دنج لا لاق سي حضرات يالله ليس سوى المختار يدريك كان خمو لا فوكو كودول ينت يالله باي واخنا لا واي بروم مريد واخون باي واخنا كو كان دولا خم لودول ينت يالله محمد لا انس ولا ملك ملاك دو كوي مقام با خم مقام كتميه بو شيخو تيجان yone nit yonent yi amul benn yonent ci yonent yu kowe ba xam katmiya Cheikhu Tijaan moo tax euh, katmiya moom moo nga noonu kenn xamu ko foofu ku dul yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dañ ko dañ ko lax mu am ko nag ci 18 safar ñoo ngi ndokkeel suñu mbokk murid bi euh, ndax 18 safar ci la Cheikh Ahmad Bamba demoon liggéeyal yàlla at moomu nga euh, juróom-ñaari at ak juróom-ñaari weer ci tukki moo xam ne moom nee na lépp lu mu am ci yàlla rek moo ngi ko amee ci tukki boobu loolu tawfiq la ci ci nit ku ñuul la te ci Sénégal la dëkk yàlla may a maqaama boobu waaye nag nee ne moom Cheikh Ahmad Bamba radiya anni sibtahu tijaani alayhi ridwaanu mubidi tijaani waaw man liggéeyal na yàlla ba Cheikh Ahmad Tijaani gërëm na alayhi na nekk ci Cheikh Ahmad Tijaani ridwaanu ngërmaani mubidi tijaani yàlla may alak kii tooñ maanaam liggéeyal na yàlla ba Cheikh Ahmad Tijaani gërëm kon loolu moom yaa ngi dégg loolu foofu moom féete na boor ñoo ñoo ngi ñaan yàlla yàlla may dëgg-dëgg mbëggeelu Cheikh Ahmada Tidiane yàlla yàlla may dëgg-dëgg xam Cheikh Ahmada Tidiane toujours toujours Cheikh Ahmada Tidiane moom toujours dañ cee war a dox sayu waaw du du jeex amul fu tàmbali amul fu mu yem balaa ngaa xam ne nga gis nga xool wëy bay bàyyi ñees la di woy Cheikh Tidiane de la nga xam ne Cheikh Tidiane géej la boo xam ne amul fu mu tàmbali amul fu mu yem yàlla may ñuy dox ci moom xëy na taxaw ba abadan euh, su nekkoon dañu fi daan fekk sax man nañu organiser guddi gi ñu toog waxtaanee Cheikh Tidiane ak maqaama yi toj ko ta saare ko ci waxtu gàtt wi waaye comme que toujours euh, mbokk yi nekk fële Mauritanie ñoo ñuy faral di invité foofu fa lañ koy faral di defee waaye su nekkul lool moom danañ si donte si kaw la rek ñu daje foofu rek waxtaan muzaakaram hmm. Cheikhu Tidiane yi def muzaakara ci ngëneelam moo gën sax wirdu bi hmm. wirdu yi ngay wirdu ni toog def muzaakara ci ngëneelu Cheikh Ahmad Tidiane Baye Niass nee ni moo gën sax wirdu bi waaw demal ci jawaay rasaay da nga gis foofu wax yàlla nañu yàlla def ay Tidiane ah. barhamu baun waraun alifun thumma ha mimun mujjal faydu Tidiane jox ñu ñuy naan